waaw maye deret moom dafa yàgg jànkonte ak i jafe-jafe. Mhm. man na ma wax ni euh, bokkul ci culture sénégalais. Mhm. tàmmuñu ko. tàmmuñu ko euh, ñaare ñoom li ñu xamoon mooy euh, dañuy toog rek ba soxla taxaw ba ñu jaaxle ku ni sa mbokk mu ngi tëdd bu ko amul fii ak nangami minute wala nangami waxtu dina loru ñuy doog daw ji dikk. Mhm. mais ba bariwul lu sénégalais di jóg nii rek. ci constant général nii rek ñëw rek ñëw maye deret ca yàlla tax am na nag ñu koy def mais lim bu néew la. mais jamono bii ñu toll moom depuis quatre voire cinq mois. Euh, dafa dafa jéggi dayo waaw ñu nag ci suñu jàngat li ñu jàpp ni moo ko yokk mooy mbas mi fi nekk nii. nit ñi ragal nan mbas mi xeetu ragal goo xamante ni nii jort na ni ku ci dugg hôpital rek moom mooy gasax nga. loolu waaw dafa mhm. doy waar trop daf ñu gàllankoor trop trop nag fi mu ne nii ci banque de sang yi. Mhm. daanaka gisatoo kenn kenn ku maye. ca ak regroupement yi ñu génn yi daan génn di dugg ci koñ yi ak di dem ci service yeeg yooyu pour nit ñi di dajaloo di nu may aussi. Mhm. dafa dafa jafe trop fi mu ne pour ñu def ko. Mhm. ndax mesure de sécurité yeeg. Euh, mhm. mesure d'hygiène yi nit ñi mënuñu ko matale. moo tax fi mu ne nii daal vraiment toll nañ ci période boo xamante ni jafe na trop trop trop pour nit soxla deret rek di ko fekk ko fa sur place. macha en tout cas maye deret nekk na loo xamante ni c'est important nit ñi dañ koo war di def parce que da ngay sauver vie mais euh, hôpital dañuy gis euh, ni aussi li ngeen di wax ni deret dafa manqué dafa bari trop à chaque fois dañuy dégg ni deret dafa manqué ngeen di woo nit ñi à ce que ñuy maye deret d'habitude yan yan groupe sanguin ngeen ngeen ngeen di soxla waaw groupe sanguin moom yëpp la ni soxla. Mhm. amul boo xamante ni duñ ko soxla. Mhm. xaj na nag am na peut-être boo xamante euh, moom la ñuy gën a soxla. muy groupe O moins au négatif. O négatif parce que moom dafa doon groupe boo xamante ni. soo ko yoree rek nit ki bu dikkee même soo xamul groupe am sax. Mhm. mën nga ko defal sans risque. mooy groupe bi nga xamante ni ñëpp mën nañ ko jël. même malade bi bu fekkee xamagoo groupe am sax. Euh, jarul nga koy defi muy perte temps wala dara boo amee au négatif rek mën nga ko jël directement defal ko ko. Mm, donc au négatif moom mën na may ñëpp deret. Mm, moom mën na may ñëpp deret léegi nag gàllankoor bi ci am moom mooy. au négatif moom bu soxlaa au négatif kese moo ko man a may. loolu moom suñu borom moo ko tëggee noonu. Uh-huh. waaw moom mën na may ñëpp waaye moom moom kese moo mën a may boppam. ne day def nag yow bu fekkee ki ko manqué tey au négatif la boobu rek problème day daal di juddu. Mm-hmm. parce que ñi ko doon wunu c'est moins de 1 de la population. Mm-hmm. ba paré dañ koy soxla. Mm-hmm. te ku ko soxla mom mom kese nga mën jël amul bu ko mané remplacer. kon au négatif mom mën na may ñëpp mais kenn mënu ko may. kenn mënu ko may au négatif mo koy mën a voilà très bien. waaw d'habitude waye loolu tamit dina nek problème de. waaw dina problème la sax kay problème la problème la. Mhm. mais nag comme que du du groupe bu bëri ñoom te ñi ko nekk bëriwul. Mhm. Euh, ñi koy soxla dëgg-dëgg nga xam te ni ñoom buñ ko amul man a loru ñooñu duñu bëri c'est-à-dire dinañ ko soxla toujours parce que moo man a may ñëpp. Mhm. mais en tant que O négatif bu tëdd dinay am nag mais du bari parce que ñi ko nekk bariwul. ca très souvent ñun tey jii boo ñëwee maye deret wala fu nu mënti dem ñu xool bu fekkee O négatif jël sa numéro téléphone jël sa lépp. dañu am répertoire boo xam ne fu ñu ko soxlawee rek dañ o oo mais euh, nit bu ñëwee di mayee deretam xam naa ni euh, di ngeen di ngeen ko saytu cest di ngeen ko xool xool ba xam amul jàngoro wala dara su ngeen ci gisee jàngoro naka ngeen di def waaw xam maye deret dafa doon am ay normes yu ko mm-hmm. régir ñu tegal ñu ko loo xam te OMS da koy jox dëkk bu nekk selon ni ngay dunde mm-hmm. ak fi sa koom-koom toll ak fi sa niveau de vie toll ak sa état santé di ñu fa dëkk mm-hmm. OMS day wax euh, gox bu nekk. Mhm. ku mel nii moo fa war a maye deret fii ci senegal dañu wax ni la góor walla jigéen bu am fukki at ak juróom-ñett ba juróom-benn fukki at boo xam te ni cliniquement mooy xam te ni nii amul benn feebar boo xam te ni mën nga ko gis nii gis ko ci moom nii rek à vue nii te defaloo koy examen. Mhm. yëgul dara lu koy metti amul asthme amul feebaru drépanocytose. drépano waaw mhm. bu dee jigéen du doon jigéen wérul. du doon jigéen buy nàmpal. lu doon jigéen moom tamit tam mu ngi gis fóot ca setagul wala bi mu setee matagul semaine. Hmm. yooyu yëpp soo ko dégagé. Hmm. léegi nga vérifier ko tension am. Hmm. interroger ko waxtaan ak moom ba xam am na ay jàngoro yu mu yëg wala dara wala benn comportement à risque bu mu defoon wala dara yooyu yëpp boo ko seytoo ba yooyu yëpp yemb ba pare tam day doon nit ko am te ni gàtt gàtt dafay mat juróom fukki kilo mu doog a mën a may. waaw léegi comme risque yi nii wax. Euh, risque amu ci. parce que gis nga deret bi ngay maye. soo ko maye une heure de temps après sa yaram daf koy defaraat ca quantité boobu ngay joxe dañ ko calculer ak euh, viu globules rouges yi globules rouges mooy euh, ferñeent yi nekk ci deret bi. Mhm. ca di ko di ko doxal. Mhm. ñetti weer yu yot. Mhm. lu toll ni loolu ngay maye. moo ko ak soo mayewul yëpp sa yaram daf koy daf koy détruire lu toy noonu ci deret bi. ñu gaanuwaay ko dem ko wan ak ñàq ko dafay génn automatiquement mu renouveler wu waat mhm. loolu moom lu mënta ñàkk la ci nit mhm. soo mayee ak soo mayewul ñetti weer yi jot loolu dina génn ci yow mhm. kon kay ñu mayee rek voilà léegi vaut mieux nga mayee ko ngam te ni renouvellement bi dina gaaw nga kiwaat ko léegi ñetti weer yi jot léegi bu dee jigéen nag moom dañ koo def ñeenti weer ndax comme que jigéen day am weer wu nekk euh, deret buy génn ci moom pour compenser loolu léegi ñu ni bu dee weer yi jot mën nga ñëw maye su dee jigéen ñeenti weer yi jot mën nga ñëw maye. suñ la saytoo noonu ba pare. pour vous dire que amul benn risque bu ci ne amul benn danger. loolu luy génn la ngay maye ko mu dem ci malaat nga am ci tuyaaba ak nga bañ ko maye dina génn. damay dégg am ñoo xam ne yenn saa yi dañ naan damaa ragal a maye deret dafa métti wala. déedéet méttiwul. Mhm. moo prise de sang bu ndaw bi ngay def booy def analyse wala dara la. ca génn boobu muy génnoon doog bi raakool bi alaaj njëriñ li raakool naa kii de. ci <laughs> gis-gis la ci gis-gis la rek mais bu la ba jam doo yëg sax ni ah, moom ko sampee boobu. lépp communication la <laughs> communication bi rek moo xaw a des. waaw uh-huh. parce que c'est vrai lii nga wax nii moom mooy problème yu bëri. Eh, dama ragal piqûre bi. ah man moom man moom vraiment loolu laay wax man dama ne man damay ragal parce que damay gis euh, nit ñi di maye deret gis naa ñu fi ñu koy mayee aussi mais su ma xoolee euh, piqûre bi. jam bi. nga xool raakool bi rek. yow boo deful ndànk da ngay kii. Malick tamit loolu la ma wax nee na dafa ragal moom tamit. <coughs> waaw xam nga loolu euh, approche psychosociale bi ñu ciy def la rek waxtaan ak nit yi. xamal ko ni ca mooy li nekk. Uh-huh. raccord bi noonu ci gis-gis la nii rek mais amul looy metti amul loo ciy yëg boo koy maye ca boo paree amul benn jafe-jafe bu indi. waaw uh-huh. ah, moom dafay tooñ mais mayekatu deret la moom. Mm. day ñëw di maye lu bëri ah, xam na ni man la expliqué nii vraiment amul dara lu ci metti amul jafe-jafe. waaw uh-huh. ah, franchement. ci gis-gis nii nag soo xamul mën nga tiit mais di dalal xelu ñiy maye si xam ne amul risque ci sa wàllu wér-gi-yaram méttiwul. ca boo paree itam du la tegal benn gàllankoor. ca itam yàggu. parce que boo jëlee inter temps interrogatoire bi lay defal pour xool la. maye bi ngay maye ak boo paree temps de repos bi ngay jël pour jël sa collation lépp lépp man na nekk ci 30 minutes. xam nga loolu du perte temps. mais sachet bi ñaata ñaata ñaata ki lay jël. Euh, sachet bi mu ngi jël 450 cc. 450 millilitres. Mm-hmm. maanaam dañu xayma ni euh, doomu aadama bu majeur bu nekk wér. mag juróom fukki kilo jëm kaw ba juróom benn fukki kilo am nga ci deret lu toll ci juróomi litre waaw léegi nag li ñuy jël ci poche boobu dañu jël bu ñu jëlee yow li nga am ci deret dañ ko xaaj fukki xaaj ak juróom benn benn bi la jël le seizième du volume sanguin moom la ñuy jël day doon loo xamante ni amul lenn lenn lu mu lay wàññi waaw te mooy li ma la wax sànq rek soo ko mayee ba pare waxtu bi ci topp euh, sa yaram daf koy defaral mhm. ci du la yàqal dara ci say activité man nga delu wa say activité bu re da ngay liggéey même bu re da ngay def sport sax peut-être dana wax nga baña def bu intense trop trop jour bi nga maye mais man nga delu wa sax def sa sport mhm. xam nga laaji lolu amna solo parce que mhm. leral yim fi indi ni euh, man de xamuma ko woon ah, man yaakaaroon na ni ñiy maye deret dina metti lol waaw ndax ndax raakool bi ngay gis ak yooyu noonu yenn saa yi ñuy pomper seen loxo yeeg. Mhm. xam nga mhm. yooyu yëpp euh, dama koy gis ma mhm. yaakaar ne day metti mais leeral yi am na solo alaaj njëriñ la. am na solo Adja Jooja Cheikh ma xanaa di ko ñaanal yàlla rek defal ko jàmm. teewaay bi bég nañ ci trop leeral na leeral goo xamante ni ñi amoon kumpa ci maya deret. seen kumpa dañ na tey. waaye ñi nga xamante ni itam yàlla dogal na am nañu yërmande ngir mën a maye deret te xamuñu fu ñuy aw itam. yàlla dogal na tey am nañu buntu boo xam war nañ faa mën a jaar mhm. ndax Cheikh Ibrahima Seck leeral na lépp macha allah rabbi méccam faj dafa am solo mhm. euh, su sunu sunu sëriñ bu baax bi Cheikh Sidi Hadji wax nanu ni bokk na ci ñaar yi mu tànnoon ni su doon demaat doonaan ndaw di ko wut bokk na ci ñaar yooyu nga xamante ni moom mooy tagg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak méccam faj Mhm. muy wàllu musique bi nga xamante ni macha allah bi Cheikh Ibrahima moom la fi toogee métier faj dafa am solo mhm. ndax jaamu yàlla gi ci lalu dafa bari mhm. te itam mayee deret dafa bëri lu ci lalu xam nga boo mayee deret bàyyi fa ëllëg ci si biir deret jooja mën naa sauvé koo xamul te yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa jàngale ni képp ku sauvé benn bakkan mel na ni sauvé nga bakkan doomu aadama yëpp waaye ku lor benn bakkan mel na ni lor nga doomu aadama lor benn bakkan doomu aadama yëpp kon dafay mel ni daal mayee deret moom Cheikh Ibrahima indi nañu tey daal wax dëgg yàlla lu ama am am solo loo xamante ni soxla woon nañu ko ñaan yàlla daal gën leen a defal jàmm fee ngeen nekk daal wax dëgg yàlla euh, nekkal fi doomu aadama yi yàlla na gën leen faa defal ndam mm-hmm. nit ñi nañu ñëw di maye si deret mm-hmm. wax dëgg yàlla waaye am na ci sama mbokkum njóobeen moo xamante ni moom la ko gën a neex ba mayee ba ñëw dane ma daal wax dëgg yàlla sandwich bi lay jox boo mayee deret ba noppi da <laughs> ko yow sa mayee la jox moo la ci ak waa ak waa soo <laughs> lépp ma ne su ko <laughs> boo mayee deret ba noppi ma ne ko ah loolu de ginnaaw am na ci itam. parce que yàlla xanaa ne da ngaa sant est-ce que doo xaw di miir. Mhm. yooyu wala mhm. yooyu yëpp du ci am. waaw dina ci faral di am. Mhm. mais miir boobu koy li koy indi aussi. Euh, du dara ñaare li koy indi mooy stress. stress waaw te gis nit ki ni mu koy waajee. Di dama wara a maye ji terrain jàpp loolu très bien lolu moy li ñuy malaise vagal la du hmm. malaise bo xamanteni lu garaaw la hmm. parce que bala nga maye dina la seytu ba hmm. xamni man nga maye lo xamante ni la c'est passager day jall souvent nit ki degré ba muy tek maye deret bi la ak tiit bi ak lolu rek mom moo koy indi mais du lo xamanteni lu garaaw la wala dara c'est passager yan malade ñu gëna soxla ñu leen di maye deret wa ñi ni may del moy malade cancéreux yi ak ñi nga xamante dañuy def hémodialyse

ben bobu mo fi né hôpital Saint-Jean de Dieu moo ñuy sécuriser à peu près ci xam ko c'est le privé. Mhm. ñom dañuy jël juste pour seen consommation rek. Mhm. euh ci fi ñun dañuy joxé ba Tiwaawa ba Mbour. Mhm. ci suñuy estimation ñun ñu ngi wax ni war na mu am chaque année juroom benn junniy poche yoo xamante ni yu ñu defar la mu baax nit ñi jëfandikoo ko pour nga xamante ni kees dinañ am sang bu doy duñ manqué juróom benn junni yoo xamante ni lu ñu defar ba mu baax la ñu séddale ko. te fii may wax ak nii boo boolee li jël lépp parce que deret bi tam du caag ni koy joxe rek ñu daal koy jël jox ko malade bi. da nga koy saytu xool ba xam amul benn jàngoor. Mm-hmm. fi mu ne nii boo boolee li nu amagul nii te ñu ngi huitième mois defe naa. Mm-hmm. lépp boo ko boolee ci tey jii ñu ngi ci deux mille et quelque on a pas euh, trois mille cent poches fi mu ne nii lan toll. ñu ngi doog a am ci li nu soxla. Mm-hmm. ca daanaka léegi at mi jeex kon mhm. yaangi sentir déficit bi am toujours toujours li soxla bi mo ëpp li nekk sur place mhm. Mhm. en tout cas ñu mu doon lo xamanteni amna solo ma sha macha allah alaaji jeriñ de <laughs> maye deret jaamu yalla la kon kon waaw nañ maye mais est-ce que yeen saa di ngeen organiser aussi ay don de sang ngeen dem euh, ci yeen service yi wala ngeen ngeen def communiqué nit ñi organiser ay dons daal di ñëw indi ko tamit. waaw euh, don de sang moom toujours ci ne démb rek euh, camp tropical lañ jóge camp tropical loolu tam organisation bi c'est très simple. Mm-hmm. yaa xam société la yaa xam entreprise la wala nit rek bénévole nii bu bëgg ci koñam ñu dikk fa. Mm-hmm. da ngay ñëw directement rek hôpital régional Thiès ci banque de sang mm-hmm. soo ñëwee nga ni bis sangam. dama amoon yéenay organiser don de sang. Mhm. amul lenn loo ciy def ñun équipe bi dinañ déplacé wu. Mhm. dinañ dikk collation beeg matuwaay yi lépp li ci war. yow organiser rek ngay def sensibiliser ñi nga dëkkal yaa xam fa nga nekk wala fa ngay liggéeyee jour bi bu jotee ñun dinañ déplacé wu dikk ba foofu bu am yéene maye ñu jëlal la ñu delluwaat. Mhm. waaw. alaaj njëriñ li loolu loolu am na solo de xam nga man nag damaa ñeme engagé ma engagé. <laughs> yow de moom de yàlla nga bëri yërmande yërmande jee bari waaye fexe bu bàyyi xel loolu rek naa ne waa prestige ah xam naa ne comme tey am nanu gan bu toll nii waaw dama dama ñeme engagement mhm. ah saan ma ma jëlati ko rek defati sama mënin waaw yow de ñu xool nu ñuy organiser woo rek waa prestige tv mhm. ak waa Thiès ca kanam ah waaw mënul ñàkk waa Thiès ca kanam nañ ñëw mhm. ñu daal jour rek daal di koy organiser ñu ah, daal di maye deret ah, waaw loolu parce moom kilifa gi moom am na boobu yërmande waaw yii am na boobu yërmande xam naa na ma dina ci def yitte te moo ciy jiitu moo ciy jiitu moo ciy jiitu xam naa ni mooy njëkk a maye moo ciy jiitu ah, borom yërmande la ko mën a am taxawaay la ci te dafa xër nag te mu ne bàyyi ma dolli leen mais xam nga yooyu la moom ndeysaan xam nga li ma ko waxee léegi rek. Pastef baa bari. na Pastef bi na na na na maye kii rek na na na maye benn yoon rek. ñu daal xam naa ni prestige ak Thiès ca kanam ak waa koñ beeg yooyu noonu. Mm-hmm. dinañ xool euh, nu ñuy organiser mais nii nii kon ki bëgg ku bëgg maye deret nu muy def fan lay dem. nii nii ku bëgg maye deret euh, chaque jour. Mm-hmm. Euh, diggante huit heures ba treize heures huit heures ci suba ba une ci suba. Mm-hmm. soo demee hôpital régional ci banque de sang bi. hôpital di nga di nga maye wala ngoon gi. Mhm. bu tàkkusaan xisee ba jot. ba le lendemain. Mhm. heure boo fa demee di nga maye. Mhm. condition bi lenn rek la. Euh, dañuy wax souvent naan booy maye deret bu lekk. may wax ni loolu du wax bu tege. kuy maye deret man nga lekk. li ñuy bañ mooy nga lekk lekk bu niin bu diis. Mm. bu niin wala bu fekkee da nga lekk euh, sama mbokk ngeen ñoom te ni mënu ñoo muñ ceeb. soo lekkee lekk bu diis. nga toog ñaari waxtu nga doog a ñëw maye mm-hmm. waaye bu fekkee da nga naan boisson lekk fruit euh, wala lomte ni niinuñ mën nga ko lekk nga ñëw maye loolu amul benn inconvénient bu mm-hmm. lekkee nekk da ngaa def sa ceebu jën bu baax ba pare naan sa ataaya da ngay toog ñaari waxtu mm-hmm. nga doog a ñëw maye noonu sax moo gën parce que dañ doon gis ni buñ daan wax nit ñi booy maye deret bu lekk da ngay gis euh, gaa yu xër yoom te ni dañuy reer rek tëdd xëy woor ba waxtu bii ñu ñëw dèjà xiif boobu rek dalay manqueel doole nga ñëw ñu jëlaat deret bi da indi daanu yu bari. Mhm. waaw nag bi nu saytoo xam na ni maye bi eh, lekk bi yàqu ci dara. Mhm. seulement lekk bu niin bi rek ba xam day diisal deret bi. Mhm. loolu lañ ci bañ. waaw mais mën nga lekk nga ñëw maye deret loolu yàqu ci dara. wala boo lekkee lekk bu am doole tamit nga toog ñaari waxtu après nga ñëw nga maye. am na solo kon euh, ñu remercier la bu baax euh, leeral yi am na solo di la remercier ci wuy si bi ñu wuy si fii ci Prestige TV di la wax euh, nga daal di tàggatoo alaaji waxtu baa ñii da ko ci rek ni ko ku ñëw di may si moom mbaa du am jafe-jafe ndax hôpital moom fi nit ñi doon kii man lool ndax ku doon ñëw tey jii rek engagé woo ngir maye si bunt yi foofu fan lay jaar rek ngir mu mën a yomb ci moom ndax ñëw di maye si ñu lay tegal ay sart ak toog loola toog bu yàgg nga xam ne da bëggoon a ñëw rek ngir ndimbali ah boo fa bëgg a ñëwee te tàggateem ba fa itam day métti waaw ah, loolu daal bëggoon nañ Cheikh Ibrahima Seck nga dimbali du ji parce ay problème may wax ñiy maye si ni hmm. banque de sang am na bunt bu bokkul ak buntu hôpital bi hmm. su fekkee da ngaa jógee yoonu angle Serigne Fall bi di ñëw waaw boo gisee ci première doo daan bi si hmm. jàkkaarloog dibiteri bi pharmacie bi am na bunt bu ndaw bu nekk foofu. foofu mooy buntu banque de sang bi. kuy maye deret. boo yegsee foofu nga ni damay maye deret dina la ubbil boo toog buntu hôpital bu mag. effectivement foofu nit ñi dan fay am ay jafe-jafe mais xam naa ñàkk xam la. Mhm. am nañ suñ porte spéciale boo xam te pour ñu bëgg a maye la ku fa ñëw. di nga dugg ca booy ñëwee ak ci jamono mbas mi ñu toll matuwaay yeeg yëpp jël nañ ko. dina la metre en sécurité. Euh, raxas loxo yi def jox la zel jox la masque. de lépp nga dugg maye ci jàmm ak salaam doo am benn problème incha allah. Mm-hmm. Mm-hmm. mais euh, balaa ngay tàggatoo jël numéro banque de sang bi. waaw numéro banque de sang bi 77 la. 746 97 44. 77 746 97 44. waaw 24 heures sur 24 dafay dox. banque de sang bi aussi 24 heures sur 24. Euh, dafay dox parce que duñu wàcc chaque jour am na bu équipe bi xëy wàccee mhm. am na koy monter 16 heures xaar fanaan xaar leen ba suba man mii di wax ak yow dama fanaan maa ngi doog a wàcc nii foofu laa jógee nii pour vous dire que amul benn instant wala benn jour mhm.

Euh, ku ñu ci jàppale rek def nga liggéey bu rëy boo xamante ne sax yéen xamoo leen euh, li ngeen def lan la. Mm-hmm. moo tax encore une fois di ñaanal boroom kër gi. Mm-hmm. di ñaanal waa kër gi di ñaanal ñëpp euh, fi ngeen séentu tele bi. sunu borom defal leen lu ci faaw xa seen njort. dem ba lu ngeen ci séentu rek mu egg fa parce que njariñu Cees la njariñu askan wi la njariñu doomi Cees la ci yéen a ngi ciy joué seen rôle ci social bi. Mm-hmm. waa di waxaat nit ñi rek ni leen. deret bi nit ñi dañ ko soxla malade yi ñu ngi teud hôpital soxla ko ci maye deret jaamu yalla la ci amul benn galankor wala benn jafé jafé bu muy indil ci ki koy maye waaw da koy maye nga demat am ci say yalla euh, vraiment te dula la dara may ñaax nit ñi encore une fois ñu dik ñu maye si eh, direct banque de sang hôpital régional Thiès ñu ngi fa 24 heures sur 24 7 jours sur 7 di sant ñep di gërëm ñep vraiment merci beaucoup